voilà mbokk yi ñu ngi ki nga xamante ne moom mooy Père ñu koy siyaar bu baax a baax Père maa ngi siyaar. maa ngi lay euh, delloo ziar euh, di leen bëggee di kontaan ci yéen taxawaay bi am na solo Vox Arena macha allah ca kaw ca kanam. Ah. ñu gis ni Vox Arena euh, gannaaw bi mu taxawalee Mama Lamine Garga 2 Frank Tyson ñu gis ni tey taxawalaat nañu ki nga xamante ne moom mooy alliance. ak ki nga xamante ne moom mooy caat ñu fas yéene dem ci galaa boo xamante ne combat yu ni tëgg fépp yëpp ci benn galaa lañ koy def nan nga gisee loolu. waa di ko rafetlu ndax waxoon naa ko ci bi may jël avance su Mama Lamine naa leen kat moo nekk seen ginnaaw ndax ay combat amateur rek ngeen tëgg non seulement mbër yi am nañ ginnaaw ay fans club ne ci seen ginnaaw mais amateur yu ne dañuy waxtaanee combat yu mel noonu di ci naan ataaya. tey Tyson 2 Franc waxoon naa la enjeu bi Mama Lamine Garga 2 wax naa la enjeu bi ngeen dolli ci caatu ngéwal ak alliance combat amateur la combat boobu rek doyoon na jar na amateur yi ñëw caatu ngéwal maa ngi koy tooñ léegi naan ko soo amee combat su may reporté suñ ne caatu ngéwal may leen xanaa caat seen kër ndax am caat du bëre maa ngi ko koy wax léegi mi ngi ree mais mu doon ñaari xale yoo xam ne wane nañ seen bopp ndax ñoom boo leen mosaan gis ci programme léeg-léeg ay amateurs yoo xam ne grand combat bu du leen indi bu ñu gisee seen tour rek dañ naan combat bu neex lay doon kon daal euh, ñetti affiche yooyu nga wax non bu ci ne feesal na stade combat yu neex la mhm. alors gis nga euh, récemment li nga xamante ne moom mooy euh, li ñu gala bi gala bi déjà le fait que ñu dajale ñooñu ñëpp ci benn tàkkusaan lan ngay wax amateurs yi ko ci loolu waaw li may wax amateurs yi mooy lu neex la parce que gala léeg-léeg da nga koy def tuddee ko gala des espoirs mais bi yoon da ngeen a dajale mbër yoo xam ne ku ci ne man ngaa demal sa bopp boole leen benn gala kooku amateur yi dañ koy rafetlu parce que bu fekkee combat yi bu ci ne jaral na la jóg ñu boole leen yëpp ci benn tàkkusaan loolu amateur yi dañ koy rafetlu amateur dañ ciy gis seen bopp. ah ñu lay remercier bañ laa euh, téye bu baax waaw di leen ñaanal ca kaw ca kam rek waxoon naa ko nee naa woon mën na ñoo jàngale bëre mën nañoo encadrer mbër yi mën nañ leen a conseil mais mënuñ leen a tëgg kon bu ñu gisee benn site internet boo xamante ni non seulement da ci doon liggéey mais nee naa ci investir dañ leen di ñaanal ñu réussir ca koo ca kanam yàlla na yàlla jàppale xam naa ne daal mbooleem ñi dundu làmb ñu ngi seen ginnaaw leen poussé ngeen am ndam yàlla na ko yàlla def jërëjëf. papa maa ngi lay siyaar. yal na yàlla nangu siyaar delloo naa la siyaar bi bu baax a baax. papa Vox comme ni nga ko xamee euh, tëgg Mame Lamine Garga 2 daal di ci taxawal euh, ki nga xamante ne moom mooy Franc Tyson 2 léegi rek gis nga ki nga xamante ne moom mooy caatu ngew ak alliance ñu fas yéene ko def benn gala am na yeneen combat yi nga xamante ne ñu ngi koy waaja a finaliser nan nga gisee ñu ne dañuy jël combat njarndeem yooyu yëpp boole ko ci benn fan. moo xam nga euh, gan buy nuyoo si dafa war a am melokaan bu mu andi. te làmb ku la ko gën a man mooy ku la gën a ñeme fare. làmb dafa doy waar dafa metti boo ragalee rek doo ko mën a def du làmb rek sax mais làmb def ci raw combat yi ngeen yi ngeen defar nii benn bu ci ne même alias ak booy bi yëpp euh, booy bi kese mat na surne rawatina Garga 2 ak euh, Franc Garga 2 ak euh, Mama rawatina Franc ak Tyson 2 booy yooyu dama dama am na ku ma ci doon waxtaanal barki dem ma ne ko kombaam moom moom moo dax euh, ay combat ci dëkk bi te te seerle wuli ay combat kon nag combat yi neex na li ci des daal mooy nu ñaan yàlla ak yonante ba yàlla dugg nu dugal nu ci bisimilah rahmaani rahim génne nu ci euh, alhamdulilah rabil alamin mais affaire bi neex na neexaay goo xam ne si yàlla buñ ci gimiñ dugg en tout cas daal dafa mel ne yéen da ngeen bi ngeen ñëwee dafa mel ne da ngeen yàgg ci làmb ji. waaw dafa <laughs> dafa mel ne am bu ngeen yàggul it xaj na ànd ngeen ak ku ci yàgg parce que tànn bi ngeen tànn moom ku xamul làmb mënu koo tànn vraiment daal maa ngi leen di ñaanal di ko ñaanal làmb di ko ñaanal Sénégalais yëpp yal nañ ci yàlla ak yonent ba yóbbu ñu fekke ko nun ñëpp ñu def ko mu neex nu feete ko muy doon journée boo xam ne feet lay doon ñëpp kontaan loolu daal laa leen di ñaanal te di ko ñaanal làmb di ko ñaanal Sénégalais yëpp. yi. amateurs yi am nañu loo xam ne si kay euh, amateurs yi kay defe naa fi mu ne ñoom ñoo war a xool lu ñuy dénkaane parce que li ñu li li ñu leen li ñu leen defal. Mm-hmm. yéen amatu amatu leen ameleetu leen amateur ak yéen amateurs yi leen amee laax. bis ba daal amateurs yi nañu sañse ànd ak yiw ànd ak yar te xam ne lii combat yii leen euh, Vox naa defal defe naa ni. gëj na fi am bu fekkee mas na fi am it gëj na fi am te combat yi neex na neexaay goo xam ne si yàlla nañ ci yàlla yóbbu daal. jërëjëf Pape. jaajëf